Thank you. ngan la wara amal ci mim rew di Sénégal war a yegsi ci fayda faydatu tidiane di Medina bay mom secrétaire général adjoint bu ligue islamique mondial bu mu yegsee ci aéroport international beles Diagne taskatu xibar yi dénk ko sen micro limu mu def moy woné mbégteem ci dik gi mu dikk ci mim rew di Sénégal ba nopi xamle lan moko fi indi أشعر بسعادة غامرة وأنا في بلد السنغال وجئت ممثلا لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى آه، من أجل آه، زيارة الاتحاد الإسلامي الإفريقي والالتقاء بسماحة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس وتوقيع آه، اتفاقية بين رابطة العالم الإسلامي المنظمة الإسلامية العالمية الأولى التي تمثل الشعوب الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي وفي آه، دول الأقليات الإسلامية ولا شك أن آه، الهدف من هذه الزيارة هو توقيع اتفاقية مهمة للغاية مع الاتحاد الإسلامي الإفريقي وهي تنبثق من وثيقة مكة المكرمة التي صدرت عن المؤتمر العالمي آه، لرابطة العالم الإسلامي آه، نانا مونغي ام كونتانت ما بو باخ دي نيو في السنغال واي نيو غير فيزيت بو اما ام سولو داخ دا فا نيو غير سيني بن بروتوكول داكور انتر ليغ اسلاميك مونديال ليغا خامني موم مو نيك سو سيكريتير جينيرال بو سيكريتير جينيرال بيغا خامني ني موم موكو يبال مو نيو تيويكو ak union islamique africaine bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass moo ko jiite nee na euh, accord yooyu ñuy def nag dafa tëdd ci accord bu mag boo xam ne moom la ñuy wax wasiqatu makka accord de makka euh, de la Mecque nga xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba tasaare jàmm ci àddina bi fexe ba stabilité am fexe ba nit ñi dund ci juste milieu fexe ba jokkoo gën a dëgër ci diggante jullit ñi moo xam ci kuréel yi la moo xam ci euh, yenn ñenn ñenn ñi loolu nag moo ko yëkkati mu ñëw te ànd naag mbégte moo xam ne mu yëkkatiku la bi mu agsee fii ci Sénégal war a àgg ci Medina bàyyi pour gisee xalifa bi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mahi Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Tidiane Ibn Cheikh Al-Hadji Barham Niass ñi gën ko xam ci Cheikh Soudan mo doon tekki ay kàddoom ci wolof gan gi nak bi mu yexé ñi ko téru bokku na ci secrétaire général bu Ligue islamique africain Oustaz Babacar Niang di ci wat di xamle né Ligue islamique Mondial bi Baye Niass radiyallahu anhu bokkon na ci membre fondateur yi ah, xam ngeen né euh, Cheikh al Islam Hadji Ibrahim Niass bi ñi sos rabita bop yalla dafa def mom mu bokku ci euh, membre fondateur yi nga xam ne sos kon bu ñu demee ba nga xam ne waa rabita bi ci boppam gis nañ ne il faut ñu dellusiwaat fii euh, jokkaat kóllëre googu dañuy wax marhaban bi ñu ngi dalal rek gan gu tedd gi nga xam ne ñëw na di ñaan mu yegg si ci jàmm incha allah ba suba ñu def protocole d'accord bi nga xam ne sëriñ bi ci boppam moo koy signé pour ñu ànd liggéey ak ñoom. gan gi nag mu ngi war a yegg ci capitalu faydatu tijaaniya di Medina Baye niki àllarba ji kon xalifatu saaxibil faydatu tijaaniya cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass di sàkk ci taalibe yi ak mboolem jullit yi ñu tartule ko ganam gile signature coopération bi nag mu ngi war a am niki àllarba ji itam bu midi jotee ci résidence Abdoulaye Bayero kerugian